sama xarit la woon sama doomu ndey la woon sama sama seex la woon sax ñu bëre ñu doon wax ni sama seex la woon ñu ñoo bokkoon euh, sunu région de Saint-Louis avant Saint-Louis sax mi moo nekkoon si département Dagana moom moo tax Saint-Louis sax nekk nekk tey département mais Saint-Louis mi woon si département Dagana ñu bokkoon politique bokk yëpp euh, ku ma gis gis ko ku ko gis gis ma ku gis sama xalaat wala fan laa far gis ko vice versa donc vraiment sama euh, mënu ma wax pour PDS euh, euh, ba xar sama xarit laa gën a mën a mën a wax bien sûr tey ñun ñëpp duñu wax alhamdulilahi rabbil alamin mais en même temps ku nekk am na ku nekk ñoo ngi envoyé message ku nekk xamoon na relation yema amoon ak moom